Ndiaye nekk ci en plein chantier établissement scolaire bi nag ñu ngi defaraat xar kanamam ca jawriñ bi ñu denk wàllu l'apprentissage. dëgëralaat dëgëralaat bâtiment yi nga xam ne mooy école yi yi nga xam ne ay établissement de formation professionnelle la. loolu liggéey la boo xam ne door nañ ko te lii firnde la mais mënuñu woon tëb rek commencer liggéey bi di daaneel boo daaneelee rek di wàññi ay classe loolu moo tax ñu tabax. nara tabax fanweeri classe yoo xam ne pour élèves yi mën fa jàng la temps chantier bi di pare. chantier bi nag taxawul naka noonu njàng mi ndaxte lu ëpp vingt classes dat nañ ko tabax ngir douze mille apprenants yi mën a woyal seen njàng. ñaar fukk yi bu ngeen ko gisee pare na presque euh, fukk yi moom pare na ba ñu peinture ko ba def fenêtre yeeg yëpp ñaar fukkeel bi ñu ngi koy defar. beneen pàcc bi des moom la ñuy waaj commencé pour élèves yi am fu ñu mën a jàngee te loolu fii ak fin janvier yëpp dina pare foofu xale yi foofu lañuy jànge bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ Mariama Sarr chantier bi nag liñ ci dugal ci koppar mu ngi toll 10 milliards liggéey bi nag ngir mu pare ñu ngi koy xaarandi fii ak 24 mois.